donc mbokk yi maa ngi leen di sant dama sant yàlla julli ci yonent bi sant suñuy waajur ñuy dénk yëpp daf ñu ne woon maa lay jox lii waaye jumtukaay bi réew mee ko moom kon liggéey la réew mm, kon ndam yi ci doon ñaan yëpp pour moom la parce que xam nañ ne yéeneem pour réew mi la kon nag waxtu dem bu jotee mm. nam ñu tànnee woon di yaakaar ndam ndam am noonu la tànnee sama rakk sama xarit eh. le ministre des sports Yankhoba Diattara xam nañ ne taxawaayam matte na ko parce que ku xam na sama xarit la sama rakk ñi ma jàppale ba ma am ndam ñu ngi fii te xam naa ne niñ ma jàppale noonu lañ ko jàppale muy le comité olympique di ci jiital Mamadou Ndiaye di ko sant di ko gërëm mais di sant tous président de fédération et groupement sportif dafa neex ay nit daje di liggéeyal seen réew te loolu la fi xam fii ci ministère muy ñii nga xamante fi laa fekk seen xam-xam màcc ci tàggat yaram muy les agents du ministère des sports cadres yi fi nekk chaque jour ñuy sacrifier pour le développement du sport sénégalais xam naa ne say xarit lañ parce que xam na leen dinañu jàpp te xam naa ne dinañ def yeneen yi jéego ñu ngi ñaan rek waa Sénégal ba ma gërëmee kilifa diine yi gërëm sénégalais yëpp. ci ñaan ji ñu ñaanal pour réew mi jëm kanam sport jëm kanam ñu ñaanal la yàlla may la ndam ba fii ñu jëm ci coupe du monde bi nga am fan raw suñu jox du ñu la bàyyi nag parce que bàyyi la mooy bàyyi suñu bopp li nga yor ñëpp ko bokk ñëpp war a jàpp bu ndam amee ñëpp lay diwu ci seen xol kon ñu mun a ñaanal jàpp ñaanal nga am jàmm. wax naa la ko sama rakk nga boo gestoo di nga ma gis sooy dox di ma gis eh. parce que loolu lañ yàgg def te lii amul kon dinañ la gën a jàpp na kon wax naa leen sama ngërëm du jeex ci président Macky sama ngërëm it du jeex ci waa Sénégal cofeel gi yëpp li tax mu am mooy ki ma dénkoon moo ma ne liggéeyal pour réew mi moo tax ñu jéem yàlla def na defuñu lépp mais am na lu bëggal Sénégal yi may sant it waa Fatick parce que foofu laa dëkk samay mbokk di leen sant bu baax ci tax ak ku may ñaanal ñëpp maa leen di ñaanal muy presse sportive di douzième gaynde di Allez Casa ak ñëpp ñiy yëngatu ci wàllu tàggat yaram maa leen war a delloo jukkal parce que jàppale ngeen gis naa fi léegi ay kilifa ku mel ni président Moustapha Diakhaté gis naa fi ay kilifa Séga Sakho Bekay Faye Lamine Thiam Dogo xam nga nag département des dafay na xaw a niroo sama gars yi maam góor ñëpp a ngi fi waaye nag mënu maa bañ sant sama rak sama xarit maam booy Diaw le directeur de développement toogaayam bi fii dugg na sama xol kon maa ngi sant ñëpp di ñaanal président Macky Sall am ndam di feddale sama coloré ak sama engagement ci o fogole séeréer mete simnanum simna fogole Sénégal ke xewna ten refu ye calel ga i doxin elo ten texa doxin na ten président la République doxnañ calel pour jalal saaxle i moof mene ka andoona yee xa qiic etu tadik a ref fo xa qoox ala roog a ci'a in men ndam to ke i njegna meen fop xe doxin ina in ke ta layna in rek i mbi'oogu ten refu i njalan saaxle i jalan la population sénégalaise i mbara ndet me ta refna koy parce que calel a faganga o lakasna gara a continuer ke commencé i nena fi ta dalno o ndeɓes xartes Yankhoba Diattara ta ref le ministre des sports me ta refna i nqeɗanan ta jeg jam i nqeɗanan réussite i nqeɗanan fop a ndamtin ndaa koy ke taxnam laka seereer kam ande a sinig genum to andaam ee a sinig mosiraam o ngaas a ndamta in a ndamta président Macky Sall nde taxu bugolaaɗo ne in i njegee o lakas parce que ke i njalna mene bo wiin we bugna mbuga in président Macky Sall doonu in meen ten tax i mbaag no mbi kon ka i ngidman ngidman saax le ngidma Sénégal xeɗana xe ta jeg jam xena Sénégal a jeg jam